waaw maa ngi nuyu sunu mbokk internet yëpp di nuyu képp koo xam ni émission bi di nga ko xool. Mame Goor janvier deux mille vingt bëri na ay meurtre bi si mujj mooy démb fële sa caaro yi ñu fekk benn xale ba mu vingt deux ans ñu rey ko anam bu ñaaw tey jii nii ñu ngi dënmal at bu bees ci ay violence ci ay meurtre ban jàngat nga si am. mais jàngat bi ma ci am moom la ci mooy bi ci Sénégal yëpp am quoi mooy peine de mort. dafa war a am Sénégal képp ku rey nit ñu rey la parce que tamit ñii rey nit ñi mun nañ bañ a nekk tamit ay sénégalais kese parce que Sénégal dafa bëri ay aventurier dafa bëri ay nit yoo xam ne dañ fiy ñëw du ma du ma wax kenn muy muy sunu mbokku africain yi nga xam dañuy jóge ci yeneen dëkk di fi ñëw te amuñu këyit chinois yi xam nga façon nit bu nekk day dugg ci réew mi te normalement ñiy dugg ci réew mi war nañ leen mën a contrôler ba kenn ku nekk ñu xam boo duggee ci réew mi lan ngay def ak fan nga nekk parce que loolu mooy rôle ministère de l'intérieur mooy nit ñi nga xam ne dañuy ñëw di dugg ci réew mi ñu xam ñi yan genre nit lañ et puis réew boo fa dee dugg tamit ñu xam réew mi nga jógee lan nga fa def ak lan nga mën a def di xool sa casier judiciaire ak yooyu mais boo xoolee Sénégal pétrole dafay feeñ donc euh, aventurier yu bëri dañu daw ñëw ci dëkk bi parce que xam nañ ñi fii ak cinq ans wala fii ak quelques années ci kanam pétrole bi mën na ball xaalis dina am si dëkk bi dëkk nag su melee noonu yu mel ni daf fi am donc nag loolu ñi nga xam ne ñoom ñoo sécurité dëkk bi ku mel ne Aly Ngouille Ndiaye nga xam ne mooy le ministre de l'intérieur ñoom ñoo war a mën a taxaw ci loolu ba nga xam ne képp kuy dugg ci dëkk bi ñu xam ne yow kan nga lan nga mos a def ak lan ngay def te tamit ku fi rey nit nga la ñu jàpp def la li ñuy def ku rey nit ku rey nit ñu rey la soo reyee nit daggate ko ñu jàppal rey la daggate la su fekkee ni nit ki da ko jam ñu xool fa nga ko jam ñu jam la fa bu fekkee 34 coups de couteau nga ko dóor ñu dóor la 34 buñ ko defee léegi mu wàññeeku mais mënuloo ñëw rey nit ñu jàpp la nga nekk fii su heure añ jotee seen waa kër indil la añ nga añ ba suur ba pare di wax xam nga tey jii nañ waxante dëgg da ngay gis ku rey nit ba pare ñu ne dem nañ ci kaso bi non nee na taxal na diw taxal na diw yooyu amul sens ku rey nit dañ la war a rey voilà loolu mooy yoon. bu fekkee dañ la dénk sécurité dëkk da nga war a fexe di veiller ci sécurité waa dëkk bi mooy tey jii ñu yokk effectif police. ak bu gendarmerie xam nga ak euh, ñëpp lép loo xam ne les forces de sécurité daal ñu yokk ko parce que tamit mënoo nekk ci kër pendant deux heures de temps di xeex ak waa kër gi ba ba kenn rot fa te police ñëwul gendarmerie ñëwul. donc loolu tamit lu ñuy déplorer la loolu moom la président de la république la ñuy alerter tey jii bu fekkee da nga dénk nit tey euh, benn ministère ministère bi bi mu ko yoree ba léegi problème yi di bari mais changé ko nga wut keneen parce que tamit loolu la say ji ñun Macky Sall lañ faral duñ sañoon tey jii day am ndam. mais mënoo am ay ministres yoo xam da nga leen di jox ay poste poste yi nga leen jox mënuñu ko gérer chaque jour nga dégg fi crime chaque jour nga dégg fii coow su fekkee noonu loolu dafa war a am mu dindi ko indi beneen ministre de l' parce que man j'ai contre Aly Ngouille Ndiaye mais nag su fekkee ni depuis boobu mu nekkee fii ba léegi affaire doxul nañ ko changé parce que loolu moo am loolu la tey jii waxuma ñu dàq ko mais mënuñ ko changer jox ko beneen ministère jël ministère boobu jox ko keneen ku xam ni au moins rigueur am saf na sap mais nag mënuñu dëkk ci réew moo xam ni tey jii chaque jour nga dégg crime chaque jour crime chaque jour crime loolu loo xam du loo xam ni dañ koy rafetlu message nag bi nga xam ni mooy message bu mag a mag a mag bi nga xam ne moom mooy lancé le moom laay lancé le président de la di ko di ko di ko lancé le ministre de l'intérieur mooy sunu dëkk une fois ku fiy nañ xam kii lan moo ko indi ci réew mi. parce que am na ay gars yu bëri yoo xam ni ay criminel lañ ci dëkk yu ñu jógee ñëw dugg si dëkk bi ñii ay chinois lañ ñii ay ñag lañ ñii yeneen xeet lañ doo xam yan xeet lañ ku nekk ngi si réew mi sénégalais dëgg la mun na mun na violent mais am na ay rey yu atroce yoo xam ni dalay lay wóor ni tey jii ñii même bu fekkee sénégalais ko def am na ñeneen ñoo xam ne du ñu ay sénégalais ñu laax seen ginnaaw. il faut ñu suivre ko bu baax. merci beaucoup wa